asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ci seen télévision Moubarak TV wala Step TV ñu ngi leen di nuyu nuyoo gi gën a rafet ci diine ci asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. tey nag ñu ngi fii ci Daaru Salaam ñëwoon ci banque borom gaawaan di maam Cheikh Anta Mbacke ñu ngi nii nag fekk suñu benn naatongo ñu koy wax alaaji Ousseynou ñu bàyyi ko mu nuyoo. waaw jërëjëf euh, soxna si maa ngi leen di nuyu di nuyu mboolem ki nga xam ne ñoo ngi leen di topp ci euh, seen chaîne yu mag yi muy ITSEP euh, TV ak mu barak TV. waaw sëñ bi ñu ngi lay fay yow yaa nekk 24 actu di chef en rédacteur bi léegi ñu lay laaj yow màgg ga nan nga ko gisee. waaw màggalu euh, Daaru Salaam gi euh, comme ni ñu ko xamee rek magalu Daaru Salaam màggal la boo xam ne euh, li ko waral bokk na ci ñibbisik Serigne Touba ci géej gi ci 1902 waaye tamit nganale gi nga xam ne maam Cheikh Anta Mbacke doon na ko ko ganale ki nga xam ne nag mooy fii ci Daaru Salaam mu nekk ngan gu am solo goo xam ne yaatu na bëri na ñoo xam ne itam ngan ga la ca xewoo nag ngan gu jéggi daye goo xam ne maam Cheikh Anta moom moo koy doon ganale ki nga xam ne moo di ku tedd ki di Serigne Touba waaye borom dërëm ak ngërëm ndax maam Cheikh Anta tamit nekk na suuf su am solo soo xam ne euh, bëri na njabootu sëriñ bi ñoo xam ne fii la ganee àdduna waaye tamit bokk na ci suuf si nga xam ne sëriñ Touba daf ko fonkoon lool ndax euh, def na fi diir fonk lool fi nga xam ne nag moo di Daaru Salaam euh, donc ci gàttal daal loolu mooy li nga xam ne mënees na koo tënk ci li nga xam ne moom mooy màggalug Daaru Salaam bi. waaw Alaaji Ousseynou li nga wax yow comme que niñ ko niñ ko xamee yàgg nga ñëw ci màggal gee yooyu noonu mhm. ñu lay laaj barab bi ñu la fekk nii ba mooy ban ban barab ci ci ci Daaru Salaam voilà barabu bi ñu taxaw mooy barabu euh, maam Cheikh Anta Mbacke comme ni ñu ko waxee rek gis ngeen taalibe yi ci suuf ba léegi ni ñu ko euh, defee parce que Daaru Salaam euh, wax naa la léegi dafa am solo lool ci yoonu murit gis nga taalibe yi fu nekk la ñuy bàyyeekoo ngir ñëw euh, fekkee si li nga xam ne mooy màggalu Daaru Salaam li ko dalee ci suba gi daanaka màggal gi suba gi lay tàmbali ba jëm guddi ba ba cérémonie officielle bi di jeex waaye nag ku ne maam Cheikh Anta ne borom dërëm ak ngërëm euh, ci barabam lañu nekk en tout cas daal li ñu la mën a wax ci euh, Daaru Salaam muy bërëb la boo xam ne bërëb bu ñaan la bërëb bu yaakaar la bërëb bu sàkku ñaan donc ni ngay gisee taalibe yi ñu ñëwee bàyyeekoo fu nekk noonee lay wéyee donc mu nekk lu am solo ci yoonu murit waa ñu gis ne màggal gi ren moom tàngaay bi tàngaay bi foo ko nattu weesu na ko te teewul nit ñi mbooloo mi bari na lool. ñu ba xam daana nii la daan mel naka jekk wala ren dafa gën a yokk. bon euh, xëy na tàngaay bi fi mu toll la parce que dañu nekk ci xëy na nawet bi war a jot te jotul mais lees ci mën a wax rek mooy li ñuy sàkku moo di euh, ñi nga xam ne nag ñoo nekkee fii. Euh, kilifa yi xëy nañu jël euh, matuwaay yi ndax euh, ku nekk xam na ne fépp foo xam ne mbooloo dafay daje rawatina nag mu tàngee nu mel nii xëy na mën naa am du ñàkk ay jafe-jafe yu ci am waaye loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci li nga xam ne mooy wàllu wérgu yaram mooy sapor pompier yi ak fajkat yi ak ñeneen donc ñu taxaw askan bi waaye tamit ndox ndox mi gis nañu tamit kër yi nga xam ne jot nañ ko visiter yëpp gis nañu fa tamit ay ay bâche yu ndox yoo xam ne teg nañ ko fa parce que lu mel noonu nit ñi dañ koy soxla mais gis ngeen tamit jaaykatu glace yi ñoom itam xëy na ñi ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax màggal gi daal lépp loo xam ne tamit jëm na ci wàllu koom-koom euh, da ci yaatu lool ndax gis nga jaaykat yi ci suuf ba léegi ñoo ngi fi donc euh, mu nekkaat beneen avantage boo xam ne bu weesoo bu ñaan bi bu weesoo bu xéewal bi gis nga léegi bi ñu àndee ci lal bi nga xam ne euh, fi la fi la ñu dalaloon sën bi donc loolu yaakaar naa nekk tamit lu am solo gis nañu tamit lal bi nga xam ne Serigne Fallou Mbacké borom naa moom fi la nga xam ne lal boobu nga xam ne fi la gane àdduna ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bëri na ay bagages yu bëri yoo xam ne daal mi ngi fii ci Daaru Salaam soxna si. dëgg la mu mel ne Daaru Salaam dëkk la boo xamante ne dëkk bu bëri barke la lu bëri nag xamuñu ko waaye daal dëkk bu bëri barke la ndax gis nañ fi yu bëri yoo xamante ne si wax dëgg yàlla macha allah bëriwul foo foo xamante ne di nga dem fekk ko fa. léegi nag ñu la laaj barab bi dañoo gis mu yaatu lool ñu bëggoon a xam ndax barab bi maam Cheikh Anta Kassé moo moo fi nekk wala dafa am yeneen njabootam yu fi nekkal voilà ci suñu xam-xam xëy na loolu xëy na bu ñu gën a jege ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne nekk nañ fi mais barab bi moom liñ ci jot a xam mooy barabu maam Cheikh Anta la mais xëy na ñi ci des dinañ ci mën a andi ay leeral waaye daal li ma ci mën a wax rek mooy bërëb la boo xam ne tey képp ku fi ñëw war ngaa xam lan moo la indi ci Daaru Salaam ndax ay kilifa yu mag ñoo fi tëdd nga xam naka la ñuy màggalee màggal màggal gu sell jàng xasaay ziar bërëb yi nga xam ne ay bërëbu kay la waye sakku ñaan euh, lool dal dina ci am solo bu baaxa baax soxna di rafetlu bu baax itam euh, seen liggéey bu baaxa baax parce que liggéey bu am solo ngeen di def parce que bërëb yu melni bu ngeen fi ñëwé ngir fekké ci waye tamit ngir téwé ci lu melni donc euh, diko ko fësal ba nit ñi gën ko xam bu baaxa baax lool tamit lu am solo la. jërëjëf. Magalu daru salam ne liñ ci xam mom daanaka lot nañ ci wax ko ndax mam Cheikh Anta day jëwriñ joo xamante ni sii ci yoonu si Ahmad Bamba ah, taxawaayam dafa yéeme lool yéeme goo xamante ne si taalibe bu ci tool ne man day lott ci wax ko lool lool lool ndax bokk na ci ay kiraamam ak ay jëfam yoo xamante ne si boo koy déglu yéeme na lool ndax maa ngi nangu ci mag mu may wax ne ma maam Cheikh Anta Mbacke mii ñu taxaw tey jii ci buntam moom moo njëkk indi ab pavillon bo xamanteni ci timone ku bax ka muy mohammed sallallahu Alaihi Wasallam ñew sampal ko seigne Touba ndax dafa demone Màkka ba muy dem Màkka dafa waxone ne ñi muy andal kenn ku ne mu ne la da ngay am aw sas wo saso mom mu ne len man damay jël sas yeen bu kenn am bu kenn sol bu mu am poste wala tubay ju am poste lu ci bay bëgg rek yittem ak aajoom maa koy faj ak ñom ba ca makka aji fasiyene len defal sen bëgg-bëgg yi ndax Cheikh Ahmed Bamba mom moko jox dërëm ak ngërëm mu bëgg wan dom aadama ne mom moom dërëm mom moom ngërëm kon sëñ Bamba ko jagleel mo jëfal sëñ Bamba ba sëñ Bamba ne ko Cheikh Anta lo bëgg mu ne ko dama bëgg dërëm ak ngërëm sëñ Bamba jox ko dërëm ak ngërëm dërëm ak ngërëm gog mu ko njëkk a wane mu karam ndax dafa dem fekk pavillon ba tim mohammed mu ne nañ ko dindi def ci bu bes wax ko lu mi jar mu fay arab yi defé né mom amut lolu mu né len wax len ma limbi ni mu tollu ñu wax ko limbi ni mu tollu mu génne ko joxé ko ñu jënd ko def pavillon muy bu bees mu né len bu màgget bi nak ndax sa ñees laaj barkeelu ñu né ku jënd bu sañ nga jël bu màgget bi mu jël bu ba indi ko samp ko mu tim si Ahmad Bamba Khadim rasoul sama xam-xam nak da ci bari wul motax manam buguma jall tam di ci wax lo xamanteni ci si Cheikh Anta jukka ko meuna royé mom dama la koy teunkel ci du nu bëgg dara sunu jëmmi bopp ji sax nanu ko Seex Bàmba gënal noonu ko Sëñ Tuubaa gënal ñu yëkkati lépp jox ko ko comme ni ko maam Seex Ibra doon defee maam Seex dafa ne ku bëgg Sëñ Bàmba da ngay seet la nga gën a bëgg nga jox ko ko maam Seex Anta jooju jukko la yore noonu lay doxalee ba mu tëdd fii mu tëdd da ngay seet la nga gën a bëgg te defe naa doomu aadama amul lenn lu mu gën a bëgg lu dul jëmmam ji kon si jëmm boo ko jébbalee Seex Ahmadu Bàmba daanaka nag kon yaa ngi ci yoonu taalibe bi Seex Ibra ngir jéxal suuf Salam, salam suuf si lima la ci mëna jox misal itam suñu jëwriñ ju tedd ji maam Cheikh Ibra nun moy kinu gi akar, aduna ak alakhirah maam Cheikh Ibrahima Fall mom mo wan maam seigne Touba suuf Salam, salam ndax ci niñu ñu ko nettalee ci histoire seigne Touba dafa non def lu am rek mu dem lu am mu dem maam Cheikh Ibra di xëy di di wacc di dem di fekk Cheikh Ahmad Bamba xey ben bis ñew ne ko ku baax gi de man gis naa suuf soo xamante ni sii ku fa dëkk da nga am jàmm am salaam te xéewal la yëkkati suuf sa wan ko mu ànd ak moom ba fii tey di daaru salaam mu ñëw dëkk si fi sancal fi waa daaru salaam door a am lu mu am mu toog fi mu am fi seex Moustapha Mbacke ak sëriñ Fallou ak ñeneen ak ñeneen fii ci daaru salaam ñu door a toog baax na mu ngi sant baax tey gërëm danoo xawan kii nag maanaam